Internacional. Cinélico Internacional. Aboneleriniz sunucular YouTube ve görselciler kayıtlarını ve adetleri ve aktiviteleri. Cinélico mbokk internautes yi teewlu sene info point net ak sene info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaar yi tey samedi di juin dañ koy tàmbaleek xibaaru biir réew mi ak tolluwaayu jàngoroy coronavirus Sénégal amaat na ñetti nit yu ñàkk seen bakkan te li ko sabab di jàngoroy coronavirus loolu nag dina yóbbu si 82. Euh, nit ñi nga xam ne kon faatu nañ te li ko sabab di jàngoroy coronavirus bésub tey bi def nañ def nañ 1247 tests mu am ci 144 yoo xam ne dañoo

duñu xam wàll yi nan la amee ba léegi ba sub bi am na 71 patients yoo xam ne ñoom wér nañ amatuñu doomu jàngoro bi wante euh, nañ ci seen bakkan fi mu nekk ni am na 1841 yoo xam ne ñu ngi sous traitement député bi ñu naan Aïda Mbodj nag nga xam ne moom daf ne nag daa am ñu ko doon artu menace daal ay menace de mort moom nag déposé na plainte kon déposé na plainte menace de mort yooyu nag mi ngi mu ngi am gannaaw bi mu gannaaw bi mu laajee ñu def audition ñu def ay audition maanaam ci Abdoulaye Diouf Sarr ak Mansour fay ministre yi di Abdoulaye Diouf Sarr ak Mansour Faye Aïda Mbodj daal dafa sàkk woon fële ci l'Assemblée nationale ñu def ay audition si ñoom maanaam ñu saytu seen ab doxalin daal déglu leen saytu seen doxalin kii di journal Les Échos nag moo joxe Euh, xibaar bi ni mel moom nag kii ñu naan maître Alassane Cissé moom la jël euh, pour mu taxawu dossier boobu ñiitam di front de résistance nationale FRN ñoom tam pare nañ it pour euh, utal utal daal kii di soxna ay dem Mbodj ay avocat am na lu bees ci mbirum Iba Thiam Iba nag mooy ndaw soosu nga xam ne mu ngi woon fële ci Almadi gannaaw bi ñu fay organiser benn soirée ab soirée privée journaliste ko nag nee na kon Euh, lundi daal lundi lundi lundi prochain lundi bii di ñëw daal kii di juge cinquième cabinet dina démarrer lii di audition dans le fond ci dossier kon Iba Thiam moomu nee na nag kii ñu naan Diadia Tall ak Fatima Rigal ñooyu ñi nga xam ne daal kon ñoom la ñuy njëkk a déglu ci mbir moomu dam Amar nag euh, di doomu ndem si yàlla si Ameth Amar euh, nekk itam goro ci Youssou nduura Euh, te moom moom lañ naan moo organisé moo organisé woon soirée boobu nee nañ moom nag gannaaw bi ñu dégloo ñaar ñooñu kon moom it dinañ ko déglu. tolluwaayu jàngoro coronavirus fii ci Afrique nag euh, ba démb ci ajuma gi daal euh, continent bi mu ngi amoon cent 276 733 cas confirmés mu am ci mille cent 7417 yoo xam ne ñoom jot nañ ci ñàkk seen bakkan. Euh, chiffres yi nag ñi ñu naan centre africain de prévention et de contrôle des maladies ñoom ñoo ko joxe dëkk yi nga xam ne nag ñoom la feebar bi gën a laal fii ci Afrique euh, bu ñu koy xool Afrique du Sud la ndax ñoom ñu ngi am mille 83 890 cas Égypte topp ci am 50 437 cas Nigéria topp ci am 18 480 cas Ghana topp ci am 12 929 cas Algérie topp ci am 11 385 cas Cameroun topp ci am 10 638 cas Maroc topp ci am 9 280 cas àdduna wërngal képp nag jàngoroy coronavirus euh, laal na fi lu toll ci 8 ci 8 681 357 personnes mu am ci 460 mille 366 yoo xam ne ñoom ñàkk nañ ci seen bakkan États-Unis nekk di Amérique ñoom ñoo wéy di gën a sonn si jàngoro gi ndax booy xool sax am na fa lu toll ci 2 millions 266 mille 693 personnes yoo xam ne jot nañ am coronavirus mu am ci 120 mille 899 yoo xam ne ñoom ñàkk nañ ci seen bakkan manifestation yi nag mu ngi wéy di am foofu ci États-Unis ay manifestation antiraciste manifestation manifestation yi nga xam ne daal euh, ñoom ay nit yoo ne dañoo jóg Euh, te te li si ëpp di ay nit ñu ñuul daal dañoo jóg ngir daal xeex boddi bi nga xam ne ak xoñoñal bi nga xam ne ak métital bi nga xam ne daal dañ ko faral di def euh, nit ñu ñuul yi foofalee ca Nigéria loolu sax tax na ba démb daal am na statut boo xam ne daal ab statut bu mag la woon moo nekkoon sax unique unique statut moo nekkoon benn statut boo xam ne bu général confédéré la dañu defoon ko fële ca Washington euh, manifestant yi nag ñoom démb daal ak seen mer bi ñu jógee daal dañoo daaneel boobu le dañoo daaneel daal boobu le ngir wane daal kon seenuk mer dañuy jeexale ci sport ak euh, lii di euh, tàmbali bi nga xam ne lii di Premier League kon dina ko tàmbaliwaat mercredi ak ñaari rencontre en retard kon mercredi Premier League daal muy football bi fële ci Angleterre kon dina tàmbali Eh, ci oka ci loolu nag eh, dañoo daa am daa am dañoo def ay jàngat maanaam ay classement ci nga xam ne ñooy meilleur buteur en activité ci championnat anglais le bokk na ci nag ñetti doomu Afrique eh, muy Sadio maane mi nga xam ne sax moom moo nekk ci quatrième place bi am 80 buts bokk na ci tam beneen africain bi ñuy wax Mohamed Salah moom nga xam ne sax mook Sadio Mané ñoo bokkandoo nekk ci attaque bi foofu la ca Liverpool bokk na ci tam beneen africain algérien bi ñuy wax Riyad Mahrez te nekk fële ca Manchester Euh, kii di Paul baa nag euh, di football ab footballkat euh, français international nekk fële ca Manchester moom nag dafa am problème ak yoon foofu ca Manchester ba fi mu nekk nii sax yoon daf ko tegoon loxo ndax daal loon daroon dawal oto ab oto maanaam ab ab ab Royce di otoom boo xam ne daal dafa amoon immatriculation bu France te foofu nag ca dëkk ba dañoo bëgg oto bu bees bu fa ñëw rek dafa war a am. immatriculation dëkk ba euh, deux semaines yi nga xam ne topp na ci ñëw oto bi rek kon oto bi daa war a am immatriculation lii di euh, foofu Angleterre wante moom nag da doon dawal oto boo xam ne daal kon euh, jot naa yàgg fukk peut-être kon ëpp na fa ñaari semaine te mu wéy di ko utiliser ak lii di immatriculation française boobu loolu tax daal ba kon yoon teg na ko loxo